ne démb ba ñu ko dalalee ca dëkk bu sell ba di Touba nag laata moo dem Tiwaawan waxtaan nag sëriñ bi nag xamal ko ni nag dina fexe ba askan wi jot ci ndox mu sell wàllu assainissement bi dana ci def kéem kàttanam nag xeex lu jëm ci wàllu mënd mi nga xam ne rek moom la ñuy nemmeeku loolee bokk na ci ay grand chantier yoo xam ne rek président ba Bassirou Diomaye Diakhar fay nag jël na ko fa yéene koo doxal ca dëkk bu sell ba di Touba noonee itam la jëlee ay matukaayam ca ba muy waxtaan ak sëriñ Babacar Sy Mansour Sud Quotidien dellu soir ci génnam gu njëkk goo xam ne rek amal na ko ci kër kilifa diine yi nag Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi nga xam ne rek mooy juróomeelu président bu Sénégal Vox Populi nag dellu siwaat ci ziara boobee nga xam ne rek amalee na ko ci diwaan bu Touba ak ci Tiwaawan yéenekaay bi ne njiitu réew mi kay dem na seet ji nag xalif bi di Serigne Mountakha Mbacké ak Serigne Babacar Sy Mansour waxtaan na ak ñoom waxtaan waam solo moom njiitu réew mi ma ngay xam ne nag ni lépp loo xam ne rek ñu ngi koy def mbaa ñu di ko doxal ci réew Sénégal war naa doon loo xam ne rek lu ñuy waxtaan ak yéen ba noppi la bu ko defee ngeen mën ñu cee ñaanal ba noppi jox ñu ci seen ay xalaat lépp ngir njariñal Sénégal enquête yëglekaay dellu siwaat bi ne Bassirou Diomaye Diakhar Faye nag bett nañu bëree bëri ginnaaw bi mu seeti jee ñaari xalif général yi nag professeur Khalidou Sy di ab enseignant chercheur ca UGB di xamle ci biir yëglekaay bi ne Bassirou Diomaye Faye dafa bokk ci ab société boo xam ne rek nii rek la waroon a doxalee moom njiitu réew mi nag ma ngay jël ay engagement ci diggante Touba ak ci Tiwaawoon laa yëglekaay dellu siwaat ci visite boobee nga xam ne rek démb la ko doon amal yéenekaay bi ne président Bassirou Diomaye Faye kay jamono ji nag tëj na gémmiñu waxkat yu bëree bëri 24 heures dellu si waat ci visite de courtoisie boobee nga xam ne rek moom Bassirou Diomaye Diakhar fay nag ma ngi ko doon amalee ci diwaan bu Touba ci kanamu al muntaxaa nag moom moomee ma ngay xam ne ni nag dañoo am mbégte bu baax a baax ngir ñëw fii ci dëkk bu sell bii di Touba ginnaaw bi ñu falee ci bopp réew Sénégal ñun nag ay taalibe lañ yoo xam ne rek dañoo fas yéenee liggéey te xam nañu saxawaay bi nga am yow sëriñ bi nag ngir ndox mu sell am fii ci diwaan bu Touba te loolee nag daañ ci jël suñu ay matukaay ngir indi ay saafara ci jafe jafe-jafe yi nga xam ne rek askan wi ñu ngi koy jànkonteel loolee moo waral nag ñu ñëw tey jii ci Touba sukk ci say woom ngir sàkku ci say ñaan Serigne Mountakha Mbacké xamal ko ni nag xam naa ne bu baax a baax askan wi ci seen bopp rek ñoo la tànn teg la ci bopp réew mi ngir nga jiite te loolee nag yaakaar gu ñu am ci yow rek moo ko waral kon nag ñun itam dinañ la ñaanal nag ngir yaakaar googee askanu Sénégal am ci yow mu bañ a tas addu jëmale ci leneen mu di l'observateur mi xëy tey jii nag dellu suwaat ci saisie bi nga xam ne rek teg nañu ko ci wàllu cocaïne foofee ci diwaan bu Kidira yéenekaay bi dellu siwaat ci lim bu takk bi nga xam ne rek teg nañ ko ci wàllu cocaïne foofee ca Kidira ci jamono ji nag waa OCRTIS amal nañu ci ab enquête ginnaaw bi ñu dalalee ab délégation judiciaire lii quotidien dellu siwaat nag ca Kidira ak Tambacounda du fi nga xam ne rek foofee la ñu tegee loxo nag lim bu takk bi ci wàllu cocaïne nga xam ne ba ñu ko xaymaa ci suñuy koppar toll na ci juróom-ñeent fukki milliards yéenekaay bi ne guléet quantité bi ñu toll nag Sénégal di ko teg loxo ci wàllu cocaïne bu ñu sukkandikoo ci douane bu Sénégal cargaison ci ab camion frigorifique nag la ñu bàyyeekoo ci dëkk yi ñu dendal yéene kaay bi ne duwaan kay jamono ji nag amal na liggéey bu am solo daal di teg loxo lu toll ci junni ak téeméer ak fanweer ak ci wàllu kilogramme bu cocaïne yéene kaay bi di libération dellu soit ci ni mu demee mu ne dimanche fukki fan ak ñeent ci weeru avril bi vingt jotee nag ci la ñu daal di teg loxo nag cocaïne boobee nga xam ne rek ñu ngi ko jàppee ci diwaan bu Kidira ci camion boo ne rek mi ngi bàyyeekoo woon ca diwaan bu Mali jamono ji kay waa duwaan yi féetee ca penk bu Sénégal nag ña gën a yokk seen mobilisation ngir mën a jàmmaarloo